similaire ñaari korité kon mooy amaat Sénégal gii le populaire ne boo sàgganee muy ñett de ah julit yi daal seen xew-xew yii mënuñoo fexe kon ba booloo benn am na ci ñenn ñoo xam ne tey jii ci samedi ji kon la ñuy julli korité ga l'office yéene kaay ne Ibadou Rahman yi la le populaire ne bu ñu sukkandikoo ci imam ba nekk ca jumaa ju mag ca université Cheikh Anta Diop bu di Abdou ah nee na naam ñoom gisuñu weer wa waaye nag fi ñu taataanee ay seede ak ay xabaar ca diwaanuk Niger moo tax nekk ñu a dakkal kon koor gi lee yéene kaay gi ne nekkul na ñoom dong kon ñooy julli tay day parce que commission d'observation du croissant lunaire wi nga xam ne kuréel gi njaboote jullit yu Dakar rii ñoo ko taxawal nee nañu ñoom it kon jot nañu kon ay seede ca Niger gee ak ca diwaanu Mali bu ñu sukkandikoo ci Serigne Talla Diop ma kon kaddu ga nee na looloo taxoon ba danañu julli tey te ca parking stade Léopold Sédar Senghor gee la ñuy jullee te julli goo gee docteur moo koy jiite murit ya nekk ca diwaanu Pikine moom ah xalaat kay mooy ndox ma nga xam ne kon dugg na si seen jumaa ja murit ya nga xam ne ñoo yeewoo ca Pikine goo gee mere nañu lool kilifa yi nga xam ne kon ñoom ñoo fi nekk ne pat pataaral ndaxte kat seen jumaa joo jee boo sàgganee duñ ta julli maar di daali ndaxte kilifa kat dañ na pat pataaral kon ci ndox mu bon mi nga xam ne moo dugg ca jumaa ju mag joo jee ca kër Serigne Touba ga ca Pikine allahu akbar boo sàgganee mani duñu fa jullee julli korite ge le soleil yéene kaay ne wàllu moo mais ah nguur gi daal lu ci tolloo juróom-ñetti téeméer ci ay millions ah denc nañu ko ngir buñ ne daal musiba am na ba plan ORSEC kon jóg na ñoom Abdoul Mbaye fa jaar premier ministre bi le waaye nag tabax yi nga xam ne kon tabax nañ ko ci yoonu ndox yëpp danañu ko daaneel ndox du bàyyi yoonam de mukk Sud Quotidien ne nguur gi daal daa tàngalaat plan jaxaay rek le populaire ne moo taxit ñi nga xam ne ñoo lorule di sinistré yo yee d'accord ñu kon ci plan jaxaay bi li ñu bëgg daal mooy ñu tabaxal leen ay kër yoo xam ne dana am lu ci tolo juróom-benn ci ay néeg ngir mën a kon def seen njaboot gépp libération yéene kaay ne bu dee am na ñoo xam ne daal ñoo réccu demu njomboor Ablaye Wade demam bi bu dee am na ñoo xam ne rëccu nañ ko dëgg mooy yenn ci ay imam waaw waaw yu nekk ci diwaanu Ndakaaru gii ak sax biir réew mi xam nga ne korité bu jibaan wala tabaskeeg yoo yee imaam yi kat dañ leen daan woo chef de cabinet wu Abdoulaye Wade bi ci boppam di Pape Samba Mboup moo leen daan woo mbéj leen may leen ay enveloppe yoo xam ne yu duun la waaye fi nekk nii ah imaam yoo yee séentu nañoo séentu bay bëgg a dee tàllal nañu seeni nopp bay bëgg de dee dégguñu tus rien nii ni dara la fi séene kaay ne Macky Sall daal ci ay tànku Abdoulaye Wade la ne ñemewu ko le quotidien yéene kaay dëggal ko nañu xoolal ma rek bor bi nga xam ne kon yenn ci ay ministre ak ay kilifa di ay fonctionnaire hiérarchie A waaw dañ leen daal lebal bu ko defee daal ñu def seeni meuble defal lépp ba mbaax di ay équipement Macky Sall lu ci tolloo fukki million la leen lebal ngir gars kon defaru te kat fukki junni kese la leen wax nañ ko fay ay Samba ilaha illallah fukki million la leen lebal dix millions te fukki junni cinquante mille kese la leen wax nañ ko fay la ilaha illallah ah maa la wax li te ministre ba wala fonctionnaire boobu bee bu yàlla dogalee ñu dàq ko ah du ñu ko toppeete dara meuble ya mu jëndoon ak équipement yeeg yëpp moom mooy borom cay sàll ngaari lam tooro Macky Sall ma ne moo gën a garaaw laay yéene ma jambal jàngi ne te Macky Sall kat xaalis boobu bee dugal na ko ca compte gaaña di maa wax lii depuis weeru juillet gii woon doom ja di Karim Wade jox ko kon ab ministère wu dëgër wu rëy woo xam ne maar day taali masàlla un Macky Sall na comme que amul doom joo xam ne ju ñor xomm la majeur vacciné Macky jël càmmi ñu jabar ja dénk ko solidarité national te xam nga ni solidarité national kat la muy liggéeyee ak ak ak ak ministère action sociale benn la doublon la Abdoulaye Wade yemu ca daa jëloon kon jarbaat ba di Doudou Wade def ko président groupe parlementaire libéral Macky Sall daal di jël kon goro bu góor ba Abdourahim Ndiaye ñu gën ko xam ci Omer def ko président conseil d'administration bu keneen Abdoulaye Wade yemu ca daa jëloon ay jarbaatam ay sëtam def leen ay directeur ak ay jege ñaaleem ci liggéey ba Abdoulaye Wade Baara Saadi mu yóbbu port Ndiouga Sakho mu yóbbu SAPCO colonel Baara soxo moo doon aide de camp ba Lamine Faye garde corps am ba Macky Sall nag géwélam ba la jël di Farba Ngom def ko député la ilaha illallah waayeem ji nga xam ne nag maanaa moo koy financé doon ko jox xaalis di Arona jax ñu jël rakam jax def ko questeur assemblée na dénk ko kon xaalis ba <laughs> cay diggante ma keeg Ablaye un mburu foofu ko fëriñ Abdoulaye Wade ba mu nekkee ca opposition ba ne bu ñëwee day dindi Sénat ba waaye na mu dindee Sénat ba na mu roofaatee Sénat ba daanaka benn la Macky Sall tam fii la signé kon assise nationale yi nga xam ne dañu ne d'accorduñ ci Sénat bi tey d'accorduñ ca ëllëg Macky ngi nii téyewaat Sénat ba Alaaji Malick Mbaye njiital gëm sa bopp ci Walf Grand Place ne Macky Sall mës ta ne dafiy jëlee kon Sénat bi laas ne Alioune Tine kay moo contre Sénat bi lee Alioune Tine daala nga mere nguuruk Macky Sall gi ba la wax li ma ne ci émission diine ak jamono ca Walfadjri la ñu ko Alioune Tine daal la mu njëkk a xamle mooy rupture amu fi liñ doon wax naan la woon woon ni naak la woon nañ ko fi jëlee ñeng ñeng ñeng patiti patata ah benn rupture amu fi laa wax bi nguur gi ñëwee kon ak léegi ni lee Alioune Tine la mu njëkk a naqarlu mooy nekk président de la république ba pare nekk tam njiital parti nee na loolee daa war a dakk laa wax daa war a dakk mu mel ni assise nationale yi kon mësta am ci mim réew mais c'est grave yéene kaay gi ne Alioune Tine daal daa mel ni daa dencaloon ab mer xam ni Macky Sall ak gàngooram gilee maar day taali da leen ko yàbbil xamlewaat ne ministre intérieur warte nekk ko bokk ci parti politique njiital rado yamu ca ndaxte nee na xool ci yenn point yi sax dañoo gën a kon dellu ginnaaw maar di taali laa ilaha illallah ne Macky Sall faluñu ko rek ngir muy def daal séddoo bukki daal bii bukki bii njuur bii sàmba bii doomu bukki maanaam partage di gato daal ca assemblée nationale ak feneen ak feneen libération yéene kaay ne waa dig day ah teq ñu ab réseau boo xam ne dañ doon jël ay nit di leen jaay laa ilaha illallah te ñañ doon jaay kat ay jigéen lañ ay sénégalaise lañ doon jaay ni ay jaam ca libi gee ak yeneen dëkku arab sax ak yenn dëkk yu ñu wër fii laas ne ay waay déglu yi nga xam ne kon dañ ko doon déglu sëñ Jëli Wàdd maître Madické Niang Aminata Niane ma Masseck Ndiaye Omar Sarr ak ak man aj nañu ko aj nañ ko arrêté nañu ko un maa la wax lii ñii mbaa du kon dañuy négocier ay négociation secrète wala ay deal la wala dañ ko fee bëgg kon yemale faf wala dañ koo bëgg kon bàyyee ndeegum abandon provisoire directe info ne ñaari policier ngi nii ña nga kon kaso i te moo ni def nañu ñaar fukki at ak juróom ci service lu tax dañ leen di tuumaal kon ne ay sàcc lañu dem naa ca làmb ja suñu làmb ne xoolal ma juróomi daan yu kéemaane yi nga xam ne kon Balla Gaye daan na ko gaañaa Moustapha Gueye la Balla Gaye njëkk a jàpp Modou Lo daal di koy daanati Balla Gaye 2 daanaat baabooy daanaat Tyson mii nga xam ne soppeem la woon Balla Gaye 2 Yékini kon la mujjee daan <laughs> man de nu ma def ba daaneel weeru koor wi rek pare ci ay mbiram jël sama yëre daaw bi ci cuubaat ko ba mu très bien bay tàkk di nes nesi ñu tappal ma ko ba mu ñoddi ne ñay ma daal di kon julli ji loolu la xale yi di wooye redoublé te loolooy dëgg